ñu bëgg a waxtaan tuuti ci diggante Tapha Tine ak booy Niang ban jàngat nga ñu mën a defal ci combat boobu war a am le 19. ah xanaa li ci promoteur bi yaakaar loolu la ci ñëpp yaakaar combat bu neex la war a doon ñaari nawle lañu ñaari moroom lañu ñaari doomi mbër lañu ñaari bawol bawol lañu kon kay combat bi war na mën a neex daal waaw combat bu neex la. ñii nee nañ xeex bi Tapha Tine la arrangé ñii nee nañ bëre bi Boy Niang la arrangé es ce que ànd nga ci loolu. mais combat xam nga bu ñëwee kenn kenn ku ne si xalaat rek ngay wax mais doo xam xalaatu mbër mi lan lay andi ndax mbër mbër bërekat mbër mu man làmb man bëree bis bu ne ak la muy andi mais du tey rek tey xeex laay def xeex rek laay def toujours dafay am bis yuy laaj xeex am bis yuy laaj bëree kon ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci ne li nit ñi xalaat mën na mën na bañ a andi loolu. Hmm. seen état de forme ñoom ñaar bi nga euh, gis nga leen euh, Tafatine gi euh, Boy gis nga ko barki démb TFM Tafatine gis nga open press bi mujj def stadium Iba Mar seen état de forme noo leen gisee ñoom ñaar. wóor na yàlla gisuma ci kenn. gisuma ci kenn. non non gisuma leen seetaanuma ko. tey boo andi woon booy ñaar tey loo koy bëriloo. andiwuma ko nañu bàyyi ba ki koy andi bëriloo ko parce que mënuma ko bëriloo <laughs> ki koy andi booy Niang bàyyi maa ko engagé ba mu engagé ba mu bàyyi bëre. kële baayam engagé naa ko tuuti kon sama ñaari doom lañu yal na yàlla def jàmm ca làmb ja yal na yàlla def ndam ca làmb ja ku war a daan yal na la yàlla may ndam ndam bu sedd guy amateur yi kontaan promoteur bi kontaan ñaari mbër yi ku ne ñibbi ak jàmm ak salaam. kan nga gis na mooy favori. favori man mosuma ko xam ci làmb ki daan rek laa defee ni mooy favori xaw ma favori. ki daan rek. looy wax looy wax amateurs yi ak supporters yi. waaw xanaa ñu def nañu daan def rek sañ sa ñëw toog ànd ak dal ànd ak jàmm ak salaam parce que làmb pola la po ak nag dañ koy def ci jàmm ak salaam def ko ci xalaat bu rafet waxtaane ko bu làmb ji commencé ñu waxtaane ko bu làmb ji jeexee ñu waxtaane ko waxtaan bi yëpp ànd ak jàmm ak salaam.